kàngam mi parti démocratique sénégalais yi dëkk Thiès dañoo def seen daje bi ñu day def semaine ayu bés bu nekk si dibéer gi si permanence Boubacar Sall bi nekk si carrière à partir de 10 heures kàngamu parti bi dañoo def taxaw seetlu si ay kaddu yoo xamante ni Ahmed Mbaye si Thiès faux, d'accord, koo wasaare si àdduna bi le parti bi nag waxtaan si def si taxaw seetlu bu wér ñuy militants du PDS di responsables responsable PDS ni Ahmed Mbaye waxul si turu parti démocratique sénégalais Quel ye le logo kenn yónniwu ko kenn waxloowu ko kaddu yi mu yëgati nag ay kaddu boppam la ay kaddu yoo xam ne moom rek la engagé kàngam yi ñu ngi rappelé ni ahmed mbay mi ngi bokk si mouvement politique taale si la bu ñuy wax fal askan wi li koy firndeel mooy jogante yu mujj yii ñu def si pour falum député Ahmed mbay si boppam Talla Sylla da ko investiroon mu doon dagan baatu askan wi fi bokk pour dem assemblée cadre Thiès yi nag nee nañu monsieur Ahmed Mbaye mii nga xam dafa jóg si déclaration wax ni mi ngi wax si turu parti démocratique sénégalais boobu la ci dàq boppam booba la génne boppam si parti démocratique sénégalais booba la wane ni bokkatul parti sénégalais parti démocratique sénégalais ndax parti bi si ay tëralinam la muy bañ ak la muy nangu dafa ni képp koo xamante ni nekk nga militant wala responsable nga fekkoo ak noonu parti bi dàq nga fa sa bopp Ahmed Mbaye nag loolu la def kon nag moo dàq boppam même si parti démocratique sénégalais depuis très longtemps këyit bi nga xam ne nag wala livre bi nga xam ne dañ siy tëkk ni parti bi doxee la muy bañ ak la muy nangu képp ku mas a def li Ahmed Mbaye def parti bi dal na sa kaw. kon nag Ahmed Mbaye bi nga xamante ni génn na boppam si parti bi ñu ngi sàkku ñun cadre cees yi ni parti démocratique sénégalais ñi nga xam ne ñoo ko jiite sa kaw li ñu wax instance nationale. dinañ leen saisir pour laajaan leen ñu jël ay daal yu tar teg ko ci kaw Ameth Mbaye loolu nag parti démocratique cadre tàngal yi bu Thiès ci seen daje tey bi loolu lañu tënk loolu lañ ko jottalee askan wi ngeen xam ko def nañ ko tey ci bésub ñaar fukki fan ak juróom ci ñaareelu weeru atum 19 18 ñu ngi leen di gërëm di leen sant